tey ñu ngi nii ñu nekk fii ci ay junni junni nit euh, dajaloo fi euh, tey di xaar euh, ñu denc ki nga xamante ne si moom moo di kilifa gi li wax mooy gannaaw tàkkusaan bu soobee yàlla ci lañ ko war a jébal mais am na ñoo xamante ne si ci suba ba léegi ñu ngi rang ci naaj tàng jër jër jër jër ngir fekk si li nga xamante ne moom moo di bi mais ngir mën a yegg ci li nga xamante ne si moom moo di bërëb ba mais yaakaar naa ni loolu du yomb ndax fi may wax ak yow nii fépp foo xool rek nit mu nga fa fépp foo xool rek foo sànni sa mbatt mu teg am na ci taalibe yi ñoo xamante ni si ñu ngi ko booleeg sax di daanu ay jël euh, ndax euh, am li nga xamante ni si moom moo di naqar kon su defee daal euh, loolu lañ leen jëlee léegum fii nga xamante ni si moom moo di Kaffrine ci Médina Baye incha allah rabbi ci kanam tuuti dina ñëwaat ak yéen ci yeneen information sapeur pompier gis nañ leen fi gis nañ police gis nañ li nga xamante moom moo di gendarmerie autorité administration bi tamit ki nga xamante ni si moom moo di maire Kaffrine Euh, gis nañ ko fi sànq moom tamit ak itam euh, moom mu ñëw jëb li nga xamante ne si moom moo di njaalam euh, kon nag ci kanam tuuti rek dinañ leen indi li nga xamante ne si incha allahu rabbi moom mooy yeneen programme yi ci dëj bi jërë ngeen jëf La ilaha illallah